الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله salaamaaleykum téléspectateur mu fatihul bichri mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ah, man soxna Yacine Diouf man maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ah, di leen jox seen wàccuwaay nag ci tabaski gi ku nekk xam nga ne buñ nee tabaski rek xel yëpp day daal di dem si xar waaye itam xel yëpp day daal di dem rek ci li nga xamante ne moo di soble pombiteer ak xeet gu demee noonu tey nag ñoo ngi fii ci marché Ndoumbé Diop marché bi bi nga xamante ne nii moo ngi nekk Diourbel euh, actuellement nii nii ñoo ngi ci pàkku soble bi ah, léegi nag dañuy daal di jàkkaarloog ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk ñu xool ndax soble yomb na ndax xam naa ne bés bu soble chéré borom kër yi dinañ jooy waaye soxna ya nga xamante ne nii nag ñooy gàddu seen peñe ñëw ci marché bi itam dinañ gàddu seeni loxo balaa looloo am nag nañu daal di xool tuuti rek ndax soble bi yomb na wala yombulee mbokk yeeg xarit yi comme ni ma leen ko waxee woon rek maa ngi nii ci pàkk soble bi waaye nag maa ngi jàkkaarloog benn kilifa boo xamante ne nii moom xam-xamam nag ci soble la yam fi mu toll nii damay daal di bàyyi rek mu daal di nuyu ak téléspectateur mu Fatihul Bichri sëñ bi maa ngi lay nuyu di la dalal ci télé mu Fatihul Bichri. waaw maa ngi lay fay nuyu baax soxna si di dal jàmm ti mu Fatihul Bichri di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla suñu borom defal leen ndam ci liggéey bi te barkeb Sëriñ Saliou nga fàttali ñu sa tur. man maa ngi tudd Modou Sylla. waaw ah, Modou Sylla nga ne ñu fekk la ci bi tabax moo ngi jub si soble euh, dafa cher wala dafa wàcc. waaw soble bi de fi mu ne nii moom taxagul mu wàcc bu baax a baax a baax waaye nag buñ ko comparé semaine bi passé moom dañ naan wàcc na parce que instant bi moom ñu ngi koy jaayee huit mille instant bi nii par sac quoi te jamono yi weesu ci ginnaaw ñu ngi ko doon jaayee ba ay dix mille onze mille douze mille sax jar na ko fi bi muy soog génn mais actuellement nii moom ñu ngi jaay saako huit mille cinq cent waaw mais taxagul mu bari nag à cent pour cent moom taxagul mu euh, ngeen koy jaayee xam nga dëkk bi amul xaalis ngeen foog ne ngeen wàññi ko du du du du du ki gën a neex ci euh, ki waajur yi quoi. bu fekkee pour ñu wàññi ko pour mu gën a neex ci consommateur yi consommateur yi ñu ko xam ne ñoo koy jëfandikoo ci kër yi ñun ci ñooñu lañ bokk soxna si ñun daanaka liñ ñun teguñ ci soble bi dara waaw bu dee ñun ñu koy jaay fii au niveau de du Ndoumbé Diop Diourbel fii ñun soble bi teguñ ci dara parce que saaku liñ ciy dàq moom da amul kenn koy dàq saaku prix day trois cent trois cent francs te par saaku te da koy jëlee ba dakaar indiko ko ak coonoom njaay mi liggéey beeg lépp daal waaw 300 francs doo ko dàq ci saako ak à cause yi ci yàqoog yëpp daal soble moom amul bénéfice boo xam ne ni moom dañ naan nañ ko ci wàññi bu baax a baax a baax su fekkee dañ ciy ñaan ku ko wàññi kay xanaa ci kaw bu fekkee importateurs yi mooy wala taxes yi ñu leen di laaj ti pour importer bi dafa xaw a cher wala yooyu ñu fexe wàññi taxes yi te fexe nu ñu leen dooleele ba soble bi mën na ñëw normal waaw mais à part moom bu dee pour fii moom ñun moom teguñ ci yenn kii yu métti yooyu noonu daal waaw pour le moment nii nag moom pompiteer moom lañ gisagul moom pompiteer moom la ñuy séentoo peut-être mu am ay jafe-jafe trop ci marché bi parce que ba actuellement nii fi may wax ak yow nii niveau de marché Ndoumbé Diop fii Diourbel ñu fi am pompiteer xam naa boo doon wër boo gisee benn place bu ko fi am ba du amul feneen waaw sûrement kenn wala ñaar ñoo ko am pàcc bi moom pàcc bi yëpp instant bi may waxee yow nii nii nii benn doomu pomme de terre amagu fi waaw pàcc bi yëpp gis ngeen yéen a ko gisal seen bopp waaw mais soxla moom ñu ngi koy séentu moom Euh, kon nag euh, sëñ bi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral yu am solo yooyu nga xamante ne leeral nga ko waaye nag euh, yéen ñi nga xamante ne nii yéenay kilifa yi ñi nga xam ne yéen a ñuy jox dépense kon bu yeboo ngeen daal di yokk seen loxo te xam ne soble cher na ci noonee nag laay woyal liggéey bi ba léegi nag damay daagu tuuti xool ba xam ndax dinaa gisaat keneen koo xamante ne nii dinaa mën a waxtaan ak moom rek ci soble bi. waaw nag gannaaw ba ma geesoo tuuti rek damaa gis ki nga xamante ne nii moom mu ngi wuyoo ci Serigne Mbacke dama koy bàyyi rek moom tam mu daal di nuyoo ak téléspectateur téléspectateur mu Fatihul Bichri waaye itam wax ñu ñaata façon soble moo fi nekk sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay euh, fay di la dalal jàmm di nuyu téléspectateur euh, yu Touba euh, yu Mafaatihul Bichri TV di leen sant di rafetlu seen liggéey di xam ne wax dëgg yàlla lu mel ni itam day wane ne itam askan wi ñor la leen ndax li actualité la ngeen ci déplacé wu di ci dox vraiment ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant euh, waa mbirum soble mi nag moom comme ni ñu ko waxee rek moom maanaam mi mi ngi mi ngi am mi ngi am ndànk-ndànk comme ça xëy na nag ci ginnaaw la gënoon a cher jamono yi nag mm, mën nañ ne mi ngi wàcc mi ngi wàcc ndànk-ndànk mi ngi wàcc te xëy na comme julli gi yegsi na yaakaar nañ ne dana gën a wàcc daal euh, bu fekkee tamit ci qualité soble yi daanaka fi mu nekk nii nag moom soble importé bi mooy bi fi nekk ci marché bi soble local bi moom daanaka amatul moom bareetul amatul waax léegi local bi lan moo tax amatul ndax dafa am problème wala. waaw local bi nag fi mu ne dafa jeex ci réew mi ndax boo xoolee 6 mois 7 mois ci ginnaaw yëpp local bi la jëfandikoo fii ci Sénégal te comme ñun dañoo bokk ci réew yi xaw a néew doole comme ni ñu koy waxee fi mu bi moo tax nag soble bi ñuy moo nekk ci marché bi moo commencé dugg ni mooy soble bi ñuy wax soble tubaab 25 bi maa ngi euh, am ku ma doon laaj mu saako bi ngay jaayee 8000 ñaata kilo moom moo nekk ci biir saako bi ñaata kilo waaw saako moom vingt lay def moom la jaayee huit mille kooku boo ko divisé day ndikk ay trois cent soixante franc la lay dikk par kilo waaw ñi koy détaillé di ko jaay ay kilo quatre cent wala yooyu daal noonu lay demee waaw est-ce que foogu leen ne war ngeen a mën a wàññi soble bi ndax damaa gis ne événement buy ñëw rek dangeen di yéegal seen loxo. waaw yokkute gi nag day xaw a nduróog ne ci ñun la fekk na du ci ñun parce que ñun moom li may faral di wax rek souvent ñun ay lantinoor lañ ñun ni ni diw gi jaare ci ñun rek ni lay sottee ko ci bi bu seddee noonu lay dem bu tàngee ñun euh, mbir mi ca kaw lay jógee te ñooña tamit tam ñoom it bàyyiñu ko dañ koo jënd tamit def ci ay frais yu bare bari ba mu yegg si ci réew mi ñun ñi tam bu ñëwee fii tam dañ ciy def ay frais ba mu yegg fii kon buñ calculer lépp ñun liñ ciy teg bariwul bari euh, bu xamante ni kii na beneen bi tamit mooy ñun tamit ay père de famille lañ kon am na loo xamante ni ay doomu njaareem euh, bugg ñu muy am buñ sañoon tey li may wax rek mooy njaareem mooy dëkk bi gën a avancé ci àdduna bi kon lépp luñ mën a dugal ci ak yombal ci li ñuy liggéey dañ koy def ndax per de famille lañ tamit ndax ñi fi ñëw tamit suñuy famille lañ suñu kii lañ boromi kër lañ dañuy joxe dépense ni soble bi bu seeree ni muy seere ci ñeneen ñi noonu lay seere ci ñun ndax ñun itam noonu lay demee ci ñun waa moo tax daal ci gàttal daal moom mbir mi daal moom ca ca kaw lay seere daal fu muy jóge ca kaw lay seere waaw yow boo amoon looy euh, xëy na sax dañ naan seer na waaye nag man sama gis-gis tamit pour le moment nii seerul ndax euh, kilo 400 francs ci ci balance xëy na bu gënoon a yomb mën naa kii ndax nag nañ comparé itam ak soble bi nga xam ne moom lañ doon bàyyi ci réew ndax boobu rek ay deux semaines ci ginnaaw kilo 500 francs la doon jar 600 francs kon tamit boo comparé loolu da naan bii wàññeeku na xëy man naa bu gënoon a wàññeeku nag la ñuy gën a kii message bi ñuy lancé nag mooy tamit euh, état bu Sénégal la ñuy wax mu gën cee mën a jàpp ndax moom mooy ndayu ñëpp mooy waajuru ñëpp mooy mooy kilifa ñëpp lépp loo xamante ni dugg day dugg ci mi am na lu ciy jaar jëm ci moom kon loola jàpp naa ne bu ko oyofaloon moom ndax tamit ak euh, dana dana gën a oyof wàcc ci askan wi ndax tamit commerçant bi tamit moom commerçant concurrence bi moo tax kon kenn mënta seeral bagage kon bagage bu seeree rek nañ koy jotee la mais bu bu yombee ci kii bu yombee ci ñëpp daal moom dana dana yomb incha allah waaw euh, sëñ Mbacke ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni li nga leeral am na solo waaye itam dafa mel ni yéen fii du ngeen fi jànkonteel benn jafe-jafe ci soble bi ndax nit ki boo ko jaayee soble mu sotti ko xaaju soble bi yëpp nëpp nga foog ne loolu lu àq. waaw loolu non loolu jafe-jafe boobu nag day wëlbatikuwaat di dellu si ñun. Hmm, ndax tamit euh, loolu tamit li mu ñuy gën a faral di am mooy fa soble bi ñore ci réew mi da jënd soble voyager ñëw ba fii benn bala nga koy jaay nit si fii sax mën naa yàq say loxo fii beneen mën nga ko jaay nit tamit mu dem mu yàqu bu yàqu da la koy indilaat da nga ko koy changé ndax tamit ba mu lay ba muy jënd jënd loon soble bu yàqu soble bu baax lay jënd kon ñun jafe-jafe yooyu yëpp day wiire dellu siwaat ñun ñuy jaay soble yi du jaar du jaar ca borom tool ba du ci kii ndax ñun buñ ko xasee jënd ba indi ko fii Jurbel ñun ñoo ko moom léegi buñ ko jaayee nit ki nag fii ci Jurbel mu dem place am sotti ko mu am problème day dellu siwaat dellu siwaat la ko jafe-jafe boobu léegi ñun ñun ñun ñun ñiy jaay soble ci lay dellu siwaat loolu jafe-jafe la euh, jafe-jafe yi daal moom bari na trop trop ak ak même tam pomme terre bi tamit parfois day am yoo xamante ni du nekk euh, qualité bu gën da nga koy jënd euh, deux trois jours mu yàqu boo xoolee tamit fii bokk na ci itam li gën a waral tamit pomme terre bi demee nii ndax fan yee ci ginnaaw pomme de terre amoon na ci marché bi waaye li tax ñu nit ñemewuñu ko woon ndax boo ko jëndoon balaa fan yi mu yàqu ci say loxo boobaa sa xaalis mooy per doo demaat ci ki la ko jaan naan ko delloo ma te koo ko jaay fii Jurbel bu mu delloo si la ko waaw loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mooy mooy kon message bi may dolliwaat lancé mooy ñu ñu dimbalati ci qualité bi nga xamante ni moom la ñuy indi fii ci dëkk bi tamit mu nekk qualité boo xamante ni dana gën ndax pomme terre tey ci misaal bu fekkoon comme qualité bi gën amoon na xëy na manca bi mën naa am du am te manca bi mën naa am du yàgg dana dana ñëw <laughs> d'ici suba la yooyu incha allah waaw Euh, Serigne Mbacke ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu mel ni li nga leeral am na solo bu baax a baax waaye ba tey rek damay xuus ak daal di fas yéenee dugg ci biir marché bi xool li nga xamante ne nii nag moo di pompiteer ndax nag pompiteer bu amul gëm naa ne suñu tabak si du neex ah, kon tonton Gora sama jëwriñ ju baax jooju dafa may daal di topp rek ma daal di xooli pompiteer bi jërë ngeen jëf euh, mbokk téléspectateur mu Fatihul Bichri Euh, lii fii nga xamante ne nii moo di marché Ndoumbé Diop dañ koo wër ba sonn maak tonton Gora mais mu mel ni pombiteer moom gisuñu ko fenn ah bi ñuy waaj nag pour ñibbi ndax dañoo sonn ci lañ gis léegi benn waay joo xamante ne nii mu ngi wuyoo ndonga ah, moom nag la ñu gis mu daal di yor tuuti pombiteer dañuy bàyyi rek mu daal di nuyoog téléspectateur mu Fatihul Bichri te daal ñuy wax nag pombiteer bi fan la ko jëlee sëñ bi ñoo ngi lay ziar de. waaw fii la waree. ñu ngi sant bu baax ah, ñu ngi sant ñu gis ne pomme de terre dafa manqué mais yow am nga ci tuut. am nañ si am nañ si tuut am naa fi tuut sa bi sama benn mbokku taal bi moo ko jox ku ñuy wax awa waaw awa Sall. Euh, yow ban ban genre ban qualité pomme de terre nga am. qualité euh, mooy bu importé bi la. importé bi moo am instant bi. mais bu dee importé bi kilo ñaata la. instant bi ñu ngi ko jaay 600. waaw mais démb bi ñu amoon nag mu ngi doon jar 500 mais tey dafa xaw a yokk. léegi man moom li ma jaaxal mooy man gisuma fenn pomme de terre te pomme de terre bi nga am jéeg ji dañ koy bañ. bii nii waaw moo fi sës. moom la gars yi naan moo fi moo tax mu falu loolu léegi jàpp nga ne balaa tabax si géey ñëw pombiteer dina wàcc ba yomb. yaakaar waaw dina wàññeeku ren bokkut ak corte comme corte gi la ñu dal moom yaakaar naa duñu dal. yow bu fekkee yow trop comme li ñu daloon si corte moom yaakaar naa du am moom ndax corte bi ñu ko doon jaay francs 1200 mais instant mais démb li ñu ko doon jaayee 500 yow bu fekkee da ngay jënd pombiteer ci ci ci bés yu mel ni comme lu mel ni tabaski wala korité yow yaay dem jëndali sa bopp wala dañ lay indi rek pour jaay dañ ma koy indil na si dinaa ko xam dinaa ko xam waaw am na ñoo xamante ne loolu mooy seen liggéey ñoom ñoom seen client la ñooñu koy wàcceel événement bi nii waaw même sur événement yi ñu koy jox mais léegi gën a bari quoi lañ siy wàcceel ba tey tonton Gora damay daal di profité tuuti rek comme fii ñu nekk moom mooy bikitu am Euh, mu mel ni poobar ak euh, li nga xamante ne ni moo di laaj dañ koy soxla surtout laaj ndax gis nañ ne laaj dafay manqué te laaj boo ko amul sa xaru tabaski du du war na dëgg neexul <laughs> dëgg neexul mooy safar affaire yi waaw na waaw laaj moom ba si moom moom instant sax mu ngi am wàcc moom moom instant bi moom laaj moom mu ngi wàcc moom importé bi laa fi gis na waaw mooy importé moo am baax na mooy laaj bi moo gën sax léegi lan ngay wax jéeg ji nga xamante ne nii rek wala soxna yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ngi ndugg si ah, ci tabaski gi waaw na bu ñu ragal dara rek lépp na baax affaire yëpp dina wàcc fi mu nii comme leen dara si carte gi moom du am moom bi instant yi moom waaw kon mu mel ni nag ndongo euh, wala boog sëñ ndongo euh, dalal na xelu jigéen ñi ndax macha allah su lépp seeree rek comme li ma ko waxee woon sànq jigéen ñi ñoom ñooy sonn ndax jigéen ñi ñoo nekk ca waañ ba waaye itam jigéen mooy jël peñe marché am ñëw daal di ndugg si kon tonton Gora boo ma mënee toppaat leneen loo xamante ne nii rek mën naa ko fee am rek ma daal di koy jox askan bi ndax xam naa ne yittewoo ngeen ko lool surtout sama moroomu jigéen ñi kon ci kanam laa leen di wax. أكبر